وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين بكي جلني دب تيجو بي اك تي يانن بارب تجاركو تي جمتوكا يو خرالي نيوغي لين دي نيو دي لين زيار دي امبكتي دي جاكار لوغين نيو بي اك زيار بي تي جيتال شاف محمد المنتقى مكه mi jëwriñu yoonu murit jamono yi ñu toll ñu koy ñaanal yàlla may ko fan wu gudd lool te lépp ànd ak wér ba naal yi mu man koo eggale ci ànd ko ñu ànd kook moom ñu bokk ci ñu ñëpp am ci ngërëmul sëriñ bu mag bi di nuyu tamit kilifa ëtt bi di sëriñ Abdou Samad Mbàkke euh, mi nga xamante ni moo tax jotaay bii am ñu xam ko ci yittewoom ci lépp loo xamante ni dafa laal diine ji laal euh, yoonu murit euh, jotaay yi yi ñuy amal nag tey ñu ngi koy amale ci lay ni bis bi tey dëppook fukki fan benn ci weeru novembre di weeru tubaab ci la ku tedd ki bàyyi ko woon ci liggéey boobu mu demoon ca géej ga euh, dellusiwaat senegaal ci atum 1902 mu doon bis boo xamante ni bu egsee war nañuy am ay jotaay e, mook yeneen bis yu ni mel ngir fàttaliku jëmm ja fàttaliku liggéey bi fàttaliku it jeexit yi ngir ñu mën cee roy ci loolu nag ci la Cheikh Abdou Samad Mbacké e, amale bis bi ñu koy rafetlu bu baax a baax di ko ci sant mu war a nekk nag ay jotaay yu bare bii benn rek la ci ñu ciy ànd ak boroom xam-xam di jàngalekat di kilifa di Cheikh eh, Ahmadu Sëriñ Ahmadu Mbàkke moom Daarul Muxti duñ fi nekk di wax mooy kan ak mooy kan ndax yaakaar naa ni ñi ñuy topp miin nañ ko ci jotaay bi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 di sëriñ Cheikh Mbacke ñan ak sama kilifa gi nga xam ne mooy sëñ Mbacke Abdourahman di jaare ci ñoom di siyaar mbooleem borom xam-xam ak kilifa yi ci jataay bi yépp di siyaar itam Cheikh Abdou Samad mi nga xam ne moo nu defal tawféex yi dajale nu ci bërëb bi ci jamono ji ngir fàttaliku ñibbisig sëriñ bi ku ne xam na ne demuk sëriñ bi ca géej ga دين جبتوم تمرانك ني محمد عبد الله العلوي واخني ليال بها الدين الحنيفي ذو اسري على الساهر الصوام في القر والحر بكاه جميع المسلمين كما بكت على صخرها الخنساء بعد توا صخري نيب جاخلي نيب تومرانك دين جي سي بوم ملني دنج كو تيج كاسو بيمو نيوي نك ci la tijjiku ci la jàmm am ci la xewal am ba gis nañ Cheikh Saadu abihi diine ji bom la ndokkeel wax ne hani an li da diini al gharib alladhi ghada yatihu sururan minhu iftikhara Cheikh Mouhamad Abdoulaye ali wax ne fa kam sarra min qalbin hazinin qudumuhu wa kam surra min hayyin wa kam surra min misri kon bi ñewé ñépp begat diine ji tinkiku xewal am jàmm am mu nek xéewalug ñoñam ijaar rujuu'i ila qawmi saadatana kon lolu bi mu nu dajalee fii ngir nu fàttaliku ko dundat serigne bi dundat itam len ci am jangalem lolu nangu ko ci sante bu baax ci tawfiq joju di ñaan yalla mu fayal nuko te nangu liggey bi ci daraje serigne bi Ahmad euh, ci kaddu yu rafet yu matt yooyu euh, ni nga ko waxe serigne bu mag bi euh, tukki bi demone kilifa yi boroom xam-xam yi ndokkeel nañ ko ci eh, kañ ko ci loolu nag buñ koy def dafa tollook ni dafa nekkoon kilifa diine ci turu diine lañ ko ko doon defal defaluñ ko ko ci alal ju bare defaluñ ko ko ci aw askan waaye ci kilifa diine gi mu doon ku wax diine nag wax pas-pas kon tomb bi ñuy indil tey mooy sëriñ bi ak tawxiid pas-pasu lislaam bi nekkoon ci moom Euh, ban taxawaay la ci am ñu bëggoon ci tàmbali bi rek nga wax ñu jan gëdd la joxoon tawxiid mooy pas-pas ban gëdd la ko joxoon ak tawxiid ban solo la am sa boppam ndax bala ñoo xam gëdd ñoo xam ban solo la am ba noppi nga waxaale ñu ko ci ñaar jërëjëf sëriñ Cheikh Mbacké sëriñ bu mag bi ku ne xam na ne ku wéetaloon suñu borom la ku fonkoon suñu boroom la ku jeexoon ci suñu borom la itam suñ boroom moo digle ñu gëm ko ci alquranul karim digle itam ñu jéem a xam maanaa yi nekk ci laa ilaha illa allah wax ne faalam annahu laa ilaha illa yi nag bu ñu seetee ki ko jëmmal dëgg-dëgg ndigalul suñu borom loolu yi nga xam ne moo jëm ci dund pas-pas ak gëm yàlla ak wéetal suñu boroom bañ ko booleeg dara saxalal ko mbooleem li yàlla ci moom eh, soril ko ak sellal ko walis mbooleem lu ko lu ko war a sori loolu dañuy gis ne sëriñ bi mooy kii ko gën a def Sëriñ Tuubaa ngëm yàlla gëm yàlla moom dafa da ko jàppoon ne teraanga ju ko suñu borom terale akramanil mu'minu bil imaani inda zuhuri shirki fi zamani Sëñ Tuubaa dafa defoon tawxiid muy diineem wax na ne diiniya tawxiidu ilaahi naasi bi sunnatil maaxi anil adnaasi wax na ne itam diiniya imaanun bi dil wujudi man kaana lii bi fadlihi wal joodi kon dafa wax ne sama diine mooy wéetal sunu borom tabaaraka wa taala ak gëm sunu borom tabaaraka wa taala àgg na ci wax ne li muy fàggu ci àdduna di ko am la ci gën a rëy mooy tawxiid maanaam kasbiya tawxiid yi wa madxi lin nabi maanaam buñ seetloo buy wax ci yónnante bi day jëm ci tagg ko ak kañ ko jëfandikoo waaye bu wax ci suñu borom tawxiid lay jëfandikoo wax na sax ne ngànnaay li nga xam ne moom lay xeexeek noonu yàlla yi ngànnaayul tawxiit la sayfi alladi يفري طلا من ثلث توحيده فهو الاله الواحد وخنا نيتام جوبنتي اك گيندي گيغا خاني موم لاكو سون بوروم گيندي تي توحيد لاكو جاري هداني الاحد بالتوحيد لب لومي داف صاح ليلك داي واخني توحيد موما موما موما تي سوب فين تاك گيمي تاك يونتبي صلى الله عليه وسلم واخنا ني توحيد موما تي دوغل موما تي سوب يقيدني لمدحه التوحيد وعنك يا اكرم لا احيد اغنا جي واخني التوحيد سامو ميروم بوبلا موي ويتال سون بوروم نانا ماكو موم لي واخني ملكني التوحيد ربي الاحد مذ لي بقل هو الله احد سين توا مودن جيم جو خامني ليبم داكوي اسكان سون بوروم ليغا خامني موم لا am ci ay xam-xam sax day wax ne sunu borom moma ko xamal allamani nahwa maa al arudi man al-a'zam fi adama fii li al-bayan bil maani dhul maanawiyati ak fi wax ne warastani al-imam malik nga xam day wax lu ci ne day wax ne sunu borom moko defal mboolem xam-xam yi nga xam ne moko am mom la ko yàlla defal te mu sonn ci lol nak dacc lu ne ba am ci tawfiq ju kawe waye teewul da koy askanat sunu borom tabaaraku taala dox bi muy dox it day wax ne ci biir suñu borom lay dox fi ne moom la ñuy gis muy wax ne fa qumtu majzuban ilayka minka bika alayka wa anka nga xamne day melni mom génnut sun borom ci genn wet suñ yoonte bi sax bu koy wamat ndax sun borom moko ko booleeg yónente bi waye day wax ne wa qadani ilayka ya rabbi bika wa qutni bika lahu bi hubbika nga xamne ربت به فيك إليك منك عبدا خديما ورديت عنك بير يوي نيغوت لي جنتي تي دمائر ييغا خاني موم لي جيفانيكو واي داي واني ني ليبم تي بير سون بروم لا اغنا تي واخني خولم توحيد رك موكو دك لم ينحو قلبي غير توحيد الملك لودو توحيد ويتال سون بروم منت دكي خولم موتاخ نيو غيس waxtu ne ci biir mbindam muy saxalal sun borom mboolem lim moom amantu billahi amantu wa wajhi uslimu abdan lahu wa linnabii axdimu loolu wax na ko ci bërëb yu bare bare bare di ko seereel itam li nga xam ne moom la yonent bi wax ne nañ ko ko seereel te mooy shahidtu anna allaha rabbun waaxidu wali janaabi laa yamiilu jaaxidu loolu wax na ci lu bare bare ashhadu anna allaha jalla wa ala huwa al ilahu وبدت له العلا أشهد أنك الإله قطعا وذرري قبل قطعت قطعا شهدت أنه الإله وحده لولو وخنا تي لو بري بري بري بري دي وخنا يالا بن بور لا بو خامني مو يوي جامو الله ربي أحد الله الصمد الذي بدت علاه لم يلد الله وليس بولد خلق كل والد وما ولد لا لوجوده ابتداء ولا انتهاء مخالف وذو غنى عن اجتهاد الملك والحمد li rabbi waxda kama lahu jalla wa azzal waxda di wax ne moom yàlla xamulut xamut ne maanaam jëmmi kum bokkal dara la xamut ci moom daa xamut ne maanaam da kenn ko xam ni suñu borom wéetam gi daal da wax ne moom laa xam xawma lenn lu lum lu mu seq kenn alimtu anna allaha la sharika lahu fi ayi cheyin quttu tawxidi lahu wax ni itam toroxlu itam kenn rek laa koy defal muy suñu borom zulli la zulliya lil fardi alladi lam yalidi wa laysa mawludan ataaba xaladi wakiirlu itam ci suñu borom la ko doon def wax ne antal wakiilu alladi qad iktafaytu bihi fi dafci wal jalbi anta wakiili fa alayka attakil wala yadiicu man alayka yattakil kon wakiirlu ci suñu borom kepit la ko daa def jël léppam itam féetale ko suñu borom tabaaraka taala li wax ne ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لما لم أجد سرواك مفودا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك في متك توحيد بن صلو لا أم بطخ متكوني نانت توحيد موي دينم موي ترانج ديكو يالا ترال موي أك مو ميلم موم رك موي نك تخولم لنن نكو تخولم ban solo la tawxiid am ba tax mu mu kii loolu moo loolu moo ma tax am waaw solo si tawxiid ku ne xam na ne mboolem yonent yi nga xam ne ñoo mas ñëw sunu borom lam leen di digal mooy nañ ko gëm te jaamu ko te wéetal ko tawxiit mooy li jëkk ci diine mooy li nga xam ne sëñ sëñ Tuubaa dafa wax ne booy jàng sax moom nga war a jëkk jàng ndax moo jiitu te dara féete ko kaw itam te boko xasse amit li ëpp ci diine moom matal nga ko la ci des rek mooy jéem a sellal la ca top kon tawhid dafa am gëdd gu rëy day jeexital ci jëf di jeexital ci lépp ci nangu maanaam gëm yàlla ku ne xam na ne sax imaan moom mooy mooy xaaj la ci diine boo xam ni nit ki du jug rek àgg ci gëm yàlla gëm gu mat islam mooy jiitu qalat al arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna lolu dama ci bëggoon ci kanam ma dog ci aksi waaw ah, waaye dama bëggoon a feeñal rek jëmmi bi gëdd gi mu joxoon borom ak rëy gi borom rëyoon ci xolam màgg gi nga xam borom màggoon ci xolam mu doon mu feeñ ci ay cëram ak jëfam yépp itam àgg na ci mësta tàllal borom tabaraka taala moom sëñ tubaab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 wax ne moom ànd ak buuri adduna yi loolu du jubluwaayam yàlla doy na ko te doyloo na ko yàlla moom yi nga xam ne mësta gis maanaam mbir mu ne moom la cay bàyyi xel wax ne huwa alladi lam ara gayrahu wala arahu fi cheyin daa yaakaar ne itam jeexital moom kenn rek koy def mooy suñu borom mooy dama wax ne wa wajaba al imaanu an al athara li rabbina wala yakunu lil wara laysa yakunu fi jamil aalamin muassirun fi atharin ma ba tax na képp ku muy jàpp suñ borom may tax ku muy bàyyit it nee na ci sa diggante ak sa borom moo tax la lu ca xew moo tax mu bàyyi la bihi uwaali wa bihi uaadi wala bihi uaadi wa bihi uwaali buñ gisee itam dundam gépp da koo tagg suñu borom tabaaraka wa taala xasida yu bari yoo xam ni da ko def ci tagg suñu borom ak kañ ko am na xasida gum tënkee laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallama واخنا فا يو بري سون بوروم اكرم بمغن حفيظ لا شريك له في الملك والحمد لم يولد ولم يلد الله جل اله لا نظير له قطعا ومن بسوى ذا جاء قد فندى له السماوات والارضون جملتها ما شاء كان وما لم لم يكن ابدا الله رب جليل مالك احد نون لوكو توبي با قصيده غاديا دون سيلال سون بوروميت تي مبولم لو ييلول تي موم واخنا ذببت لغير الله ما لم يلق به وذب لغير الدهر مولا يحسني دا واخ سان نعم. من ما نوبي تي تاغ سون بورن تبارك وتعالى يالله يا حي الذي ليس يموت ما لي عن الثناء عليك من سكوت فكيف اسكت عن الثناء عليك يا ذا الارض والسماء ام كيف اسكت عن الرداء عنك ولي كنت بلا اعداء ام كيف امسك عن الشكر وقد انعمت بالخير الكثير يا احد lépp mi da koo joxoon suñu borom war ko taala li mu wax na ila lladi maa in lahu min kulliyati loolu dañuy gis ci biir mbind na muy lim mboolem lim am lépp di ko jox suñ borom lahu dëhra niyaati noonu noonu la ko toppee lu ca toppate lahu irtixaali wa ilayhi sakani wa kaana lii fi mawdici wa maskani am na sëñ Mad Lamin Jóob da nga ne wax na ne buur bi mas na ko woolu mu bind leetar tontu ko ne ko qul lil amiri astaxyi an taraani malaikatullahi taxmiluni aqdaami ila malikin gayrillah waxal buur bi ne ko man de dama rus di yëkkati sama tànk bii di dox ay jéego jëm ci buur bu may yàlla loolu la rus malayka yi di ma gis loolu la rus na ko taalibeem yi sëñ Basiiru wax na ne mas na leen wax ne képp koo xam ni adduna ak àllaaxira addunaa la ñor na nga dem bàyyil ma fi daara ji koo xam ni àllaaxira la ñor bàyyil ma fi daara ji te dem koo xam ni adduna ak àllaaxira la ñu moo la ñorit bàyyil ma fi daara ji te dem koo xam ni yàlla kese moo la ñorit nga toog moo tax fi mu ne bari na loo xam ni wolof yi dañ ko yàgg wax waaye da koy jubbanti ci wax am na ku may nettali rek démb ne sëñ bi dafa am ku mas a dégg ku ne bu lëg lekkee aloom na ko sant coy sëñ bi ne loolu day du wax wax ju yàqu la ndax aloom maanaam maanaam coy yitteem du woon lëg lekk aloom gii lëg kay bu lekkee aloom na ko sant buur bi nga xam ne moo ko rotal nga xam ne ci ab dogalam la la rote gis nañ bi muy jàngale euh, baaqiyaatu saalihaat yi nga xam ne bu nit ki jullee moom lay def wax nañ ne am na ku ma ko net li démb ba tey ne dadaa wax ne dangay yéene ne saa boroom fas na maa yéene dàq lépp loo xam ne xam nga subhaanallah ñëpp dañ koy dañ koy tekkee maa ngi sorel suñu borom lépp lu yelul ci moom moom nag day wax ne da ngay yéene ne fas na maa dàq lépp loo xam ni xol faboon na ko jëme ci yow ci matadi te mu dàqu daq na faw te sax dàqu na njëkk mbindeef yi dàqu na teewug mbindeef yi dàqu na faddug mbindeef yi dàqu na démb dàqu na tey dàqu na ëllëg doo ko wax subhaanallahi juróom fanweer ñett nee na boo ca noppee nga ne saa boroom fas na maa yéene saxal lépp loo xam ni xol faboon na ko jëme ci yow ci mat te mu sax sax na faw te du dàqu sax na njëkk mbindeef yi sax teewug mbindeef yi sax mbin sax faddug mbindeef yi sax na démb sax tey sax ëllëg doo ko wax alhamdulilah nee na fanweer ak ñett boo noppee nga teg ci ne daal ne loolu lépp nag taxul ma jox ko li yelloog moom ndax ëpp na ko fopp te mës te mës la dañ di ko ëpp ëpp na ko njëkk mbindeef yi ëpp na ko teewug mbindeef yi ëpp na ko fàddug mbindeef yi ëpp na ko démb ëpp na ko tey ëpp na ko ëllëg léegi doo ko wax allahu akbar fanweer ak ñett daal dina nag boo daal dina nag li yelloog moom ci lu mbindeef mën a tudd mooy baatub laa ilaha illa allahu wax waxdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dañ xool googu sellal suñu borom nga xam ne da ko wax ci wolof yu leer nañ kenn ku ne mën koo dégg mën koo teewlu te dara gënu ko kawee ci kennal suñu borom ak ak sellal ko kon sëriñ bi noonu la demee woon gis nañ tubaab yi ba muy jëflanteek ñoom tooñ gu rëy lañ ko tooñ daanañ ñëw ci kër gi dugg ci biir kër gi jaxase bagage yi di wisit ak lu ne ñu def ko waaye bu ñu masaa génn dañ koy gis muy déeyaaleeg suñu borom di wax suñu borom ne ko najjaytani min alladina sallasu wa fi mataa'i wa duyóori baxasu gaa ñi de ñëw nañ lañ lañu sama bagage yi waaye nag yaa ma musal ci ñoom moo tax diiru mu nekk tubaab yi itam gis nga waxtu wu ne lum jaaxle suñ boroom lay dellu naa day tuhu jëlla la daa unaasi taatuhum isyaanu rabbi naasi waaw bi nga wax nga dëgg njatt euh, ba ñu ah. egg ci yeneen tomb yi mm. wax nga ne ñu kon euh, tawxiid mooy gëm yàlla gu sell mm-hmm. mooy fo bu bu diine doon néeg mooy fondement bi amul sikk bu dëgërut euh, néeg bi du taxaw mm. ba tax sëñ bi teg ku fi mu teg wax ci lii mu wax waaye lii mooy wax ji lii wax la nan la ko dundee nan la ko jëfee waaw ni mu dundee tawxiid mën nañ ne da ko jëmmal ci ay ci ay jëfëm da manam da ko dund ci xolam ci kaw bëgg yàlla ak ubudiya mooy dund li ñuy wax ubudiya diggam ak boromam loolu yi nag moo feeñ ci cërëm ba jëf yu rëy yi nga xam ne xëy na ñu bari yu bari dañ ko waxtaane ginnaaw bi feeñ ci moom bu dee dund xolam googu nga xam ne la ko dund nag mën naa ci indi ñaar te mooy mahabba diggam ak boromam ak ubudiya ci lu gàtt xam naa sëñ sur dafa wax ne sëñ dafa mel ne dañ ko mooñaale ak bëgg yàlla mahabba mooy bëgg yàlla subhanahu wa taala ubudiyya mooy dund ak njaam sa diggante sa borom loolu nag buñ ko waxee maanaam dafa am luñ ci jublu ndax ibaada mooy jaamu yàlla yi cër yi def ubudiyya nag mooy mooy mooy jaamu yàlla xol yëg-yëgi xol yi nga xam ne moom la nit ki am ci yëg ne moom jaamu yàlla la subhanahu wa taala cee kawe mbooleem kuñu ñu xam buñ ko sañé wax kudul dul xanaa ba sallallahu alaihi wasallam señ bisir wax ni mom suñu borom da ko moñalé ak bëgg yalla ba mu feeñee rek le meloy bëgg yalla tamalé feeñ ci mom gis nañ guddi gi da da ko da ko yàgg dundal moy ki nga xamné mësta nelaw guddi mom señ tuwaam ba guddi ga jeex moy bërëb buñ mës demit né mu bo xamni bu wét lay doon bo xamna fa di di jamm yalla waxtu wu ñuy dem dana tëju lu baree baree baree bare wala mu dem ci àll ba nekk fa di jaamu yàlla yàlla moom bëgg gi mu ko bëgg fi mu ne te du jaxase nag itam li suñ borom moom ak li yonente bi am gis nañ fu mu giñee ci suñ borom wax ne yaminu rabbiya inna rabbiya ahab lii min siwaahu wannabi baadul ahab giñ ci yàlla ne yàlla moom laa gën a sopp lu may moom ginnaaw ba nag rasulullahi laa gën a sopp ci gaan yi bëgg yàlla mën nañ ne moo doon diineem sax nag diini ya xubbu man ilayna ahmada arsala xaamidan waaye bëgg goo xam ni da ko teg ci xam li mu wax ne ahbabtuhu xubba alladi bihi araf bëgg ku xam yàlla la ko bëgg ba tax na mësula jaamu keneen ku may moom walastu abudu dawaa man gayraka yittem jëppit mu defoon ko ci suñu borom li wax ne saarifan himmati li rabbi taala sëñ bi mën nañ ne dafa seeyoon ci biir suñu borom tabaraka wa taala buñ ko sañee wax xibtu anil akwaani bil mukawwini nga xam ne mbégam léppam moo doon béggee sunu borom tabaraka wa loolu wax na ci lu baree baree bari bu dee ubudu bi itam moom ci njëlbéen wax na ne ba mu jógee rek yitteem mooy wut suñu borom tabaaraka ko taala loolu itam dox na ci ba am ci lu kawe njortam sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nettali na ne am na koo xam ni walla loolu sëñ Basiru sax moo ko nettali wax ne kenn ci ñi nekkoon njëreem ci tubaab yi dafa am lu mu masoon a ñëw di ko sàkku ci moom di ko ca digg itam ne ko loolu de boo ma ko defalee dinaa la fexal ba maanaam nguurug France waaye falal la maanaam téye gi ko téye woon foofe waaye sëñ bi da ko tontu ne ko yow mi am yitte waxal sa yitte ñu ñu dimbale la ci lañ man waaye man jenn yitte laa mas di am mooy yàlla subhanahu wa taala te fi mu ne nii dafa am naa ci lu doy sëkk kon man mosuma umma jeneen yitte moom kon noonu gis nga turam mooy abdullahi wa xadimu rasulihi sammaytani qataan bi abdika alxadim yaa man yaquulu lii bushaaratin ta doom wax na itam ne nu musta maanaam bul jort mukk ne man keneen laa ko may abdullahi man danna anni xayru abdillahi wa xayru xaadimi nabi fasaahi mësta nangu ku jàpp ne turam wi ko gën a neex mooy abdullahi wa xadimu rasulihi sallallahu alayhi wax sax ne loolu mooy sama daraja darajati kawniya abdullahi xadima abdihi ibni abdillahi sàkku na ci suñu boroom itam ba tey mu seereel ko ubudiya boobu washhad liya al yawma bi kawni abdaka xadimahu jundika sàkku na mbindeef yépp it seereel ko loolee wax na ne yaa jumlatal xalqi shhadu lii yawma فيه يحوز المجرمون لوما بكون الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة كتبه أحمد ذا صلاة على نبي الله ذي صلاة مهين من دف يب مان ساكن ين سير المبس بنتي اللي بن فتقوه ين سير المان من كت جامو بيالا لاوان بدون لغي الرسول الله صلى الله عليه وسلم كوبك جولد نيب جولد يغوري جيجاني بان نك خمني كوي توان لأ loolu itam seeraloo la ko sax nasaraan yi nga xam ne ñoo ko jàppoon inni uxaatibu nasara turra fi ardihim li maliki muttarra tayaqanu bi annani lillahi abdun xadimun li rasulillahi wa annani ma ziltu da tabarru'i min kulli man bil kufri du tajarru'i wal tashhadu liya bi qawliya maan yowman jamia alalamina jamia yowman jamia alalamina jamaa allahu rabbi zahiran wa batina xaytu akunu raxilan sàkku ci tubaab yi ne leen kat na ngeen seere ne man kat musuma dañ di jaamu yàlla buy liggéeyal yonente bi dañ talu itam ci lépp lu di kéefër buñ nee ba bis penc na ngeen xam ne man kat li ma mas di wax mooy allahu rabbi zahiran wa batinan géejug maa yomba sax gis nañ mu tiim ko di ko seereloo ne ko nag ma seeral fa suñu borom ne man jaamub yàlla la buy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li yashhad bi kaw nii عبد من يغفر الذنب وكوني خديم المصطفى بحر ما ينبا لولي نانا نانا الكرام الكاتب موم لا نكوي سيرال لول داما تي باني نيو موي موي غنا غودو واخنا ايتام ني سون بوروم تي ووم سيرال نكو كو واخنا ايتام ني ليب ميت داكوي سيري كتبي معن والكاتبان شواهد لي والشهور بذا مع البحرين واخني mbindeef yépp xam nañ ko ci moom képp koo xam ne xam nga koy xam nga ko ci moom wax ne malayka yi itam xam nañ loolu ci moom ubudi gi li koy gën a jëmmal sëñ Cheikh maa ngi jégalu ci guddal gi mooy mhm. munaajaat yi nga xam ne moom loon def diggante ak boromam sëñ Tuubaa sëñ Moodu Xadi Sill mbokkum docteur Xaadim bi nga xam ne moo israaf jataay bi sëñ Cheikh euh, abi bind na ci téeram bi mu bind sëñ wax ne wax na ne sëñ sëñ Moodu Xadi Sill nettali na ko ne mas naa gis sëriñ bi julli gee sol lu weex tal toog jublu penku talal ay loxoom ba fajar jugut nga xam ne xasida yu bari damay jàpp ne ci jataay yooyu la koy talibe jataay yooyu nag jataay yu ubudiya la dañuy gis misaal ci misaal rek léeg-léeg muy waqanteeg suñu borom di wax ne yaa sayyidi ana alfaqiru alfaani wa innani alabdu alxaqiru aljaani ana allaimu albaisu almiskiinu أنا الضعيف الجاهل المدين أنا الكسول العاجز السئيم أنا البليد المجرم المليم أنا الأكول وأنا البطال وإنني النائم والقوال وإنني الحريص ذو التفات وإنني السعلوك ذو الحاجات أنا الذي ما زلت ذا عصيان وغفلة في كل ما أحياني أنا الذي أفسد سعيي الرياء والعجب والسمعة طول الدهرية أنا الذي قد عاقني المنام من أن يرى دهرا لي المقام أنا الذي قد عاقني الذنب المليم عن المراتب الذي كنت أروم أنا الذي قد عاقني اليوم هوى عن نيل ما كل من أمثالي حوى ما أنا مغا خمني خم عبودي موي دانتالو تي مبولم لوي خيتي كاتان اك فخه ليب nga nga xamne sun borom rek moko am loli mo fess gis nañ قصيدة جمتن رضي الله عنه ورضوا عنه تعمل ربي كريم واسع ويفضل ووسيلتي عبد له لديه مفضل ديقي وفقري قد أزالهما معا جسنا داي لم وخنا لك كالكلي سن بروم لاي جوخ لبم سما خول بي جوخنا لاكو يرام وي جوخنا لاكو ييني جوخنا لاكو تومرانكي جيما تومرانكي سي بير نوني صاح ديفال نالاكو اديا بيرب يما جوغي ديكون فا يتام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 ku me ku mu doonoon ci noonu ñi ci tumuranke ngay ne ak jaaxle waaye xasida gam def ba muy dem muy asiru ma al abraari xasida sant la wax ne moom la doon ci njëlbeen ka da ci sant yàlla di wax ne xusóor yi xalat wal ahlu an ni tafarraqat li madxi alladi anhu al madihu qasu qasiru waaye gis nga mu ne loolu lépp nag pexe seytaane la moo sol ci xel yi tubaab yi ñu jëfandikoo loo xam ni ci seen njort rek lañ ko teg nga xam ne day mel ni kuy seetal tubaab yi xaruurul wara xarra nasaara bi kaydihi wa dannu zunuuna wa zunuunu xuruuru waaye fa saasere gis nga bayit wa ca topp daa daal di bay lépp dellu ci suñu borom li rabbil tifaati laa lahu taiban lahu min aldambi wal afaati wa huwa gafuru lahu tubtu min aybi iltifaati li gayrihi wa minni lahu ahdun alayya damiru ba àgg ci li mawlaaya xamdi raadiyan anhu shakiran ala sirri sirri walxabiru xabiru raditu bihi rabban yusaxiru ma yasa liman saa bit taysiri wa huwa qadiru wax ne wa fi lqalbi min ridwanihi ma ukinnuhu daninan bihi kon loolu mënoon nañ ci wax lu bare bare ci biir mbindam da ngay gis ubudiye googu di ci feeñ muy dellu ci suñu borom tabaraka wa taala xasida jéggalu yi fi ne boo ci duggoon dangay jàpp ne maanaam astaghfirullaha ghaffara dunubi liman bil أتى وذو عيبي جلي فلا يخفى على العقلاء لكن ربي ستار العيوب فلا أزال طالب ستر قائلا وجلا أستغفر الله ستار العيوب على أهل العيوب ومنجي ومنجيهم من النقم bu ma saa ñaan ba noppi ma jaxale foofu dañuy gis ñaan goo xam maanaam lu mel ne ak durru samin ba mu ñaanee ba noppi da ca teg waxin yu toroxlu wax yu ubodiya yoo xam day wane ne moom waaye yëgut dara ci boppam lay lay feeñal li mu wax ne yaa sayyidi inni daawtuka kama amartani bihi wa kuntal akrama falistajib wa li jamii almuxlisin kama waadtana wa narju kulla xiin waxfir dunubi wa taqabal amali ballir salaatiya li xayri lmursali wa balligan sha'ni lahu wajcalhu lii wa liljamici shaafian fi lwajali wala tuwaaxidni wala tuwaaxidni bi kusri lmalali yaa malja'i xata tarudda amali فلست أجهل بسوء كسبي وقبح عيبي وكثر ذنبي لو لم تكن أكرم من كل كريم لما دعوتك وإنني لئيم لكنني لما لما غدوت أفقر من كل ذي فقر وكنت أقدر من كل قادر أتيت بابك ذا توبة وأرتجي إكرامك يا صاحب الغفران يا رب الجليل فاقبل معاذير عبيدك الذليل ولا أزال راغبا وأسمد لك ولو طردتني يا سمد فإن تردني فما لي سواك يعفو ويرحم هنا ولا هناك ولا أزال لا إذن بك أبد وبرسولك السفيع المعتمد أنا بوما قنت بدالم سبنت ماني في تحورك دي لا يا كارتي لب بوما دقينك أو مفنن فما جم خمس نغوخين يطرخ لأتو سنبورم دوكو دق مك jërëjëf sëñ Ahmed euh, leer na euh, xam naa liñ ci indi moo gën a bari loolu sax wane nga ni dafa jeex tàkk ci bëgg boroomam wane nga ni tamit amul benn soxla jenn soxla jurul boroomam sonn na lool tamit ci jaamu ko ak bëgg it nit ñi seedeel ko ko ci ni moom jaamu yàlla la ci ni moom it liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la loolu yemalewu ko ci bi mu nekkee ci njabootam yemalewu ko ci bi mu nekkee gone ak bi mu nekkee mag waaye dundam gépp la xëy na loolu moo tax sëñ Bachir di wax ne xuliqa rabbaaniyan dañ ko dafa jóg rek jógte bëgg yàlla jóg jógte nekk nitu yàlla gis nañ xaside yi nga fi indi euh, fu muy toroxloo di wax ni man ku bari nelaw laa ku bëgg aw ñam laa ku tayal laa ku lii laa ku laa laa yoo xamante ni euh, dafay firndeel euh, ni sufiyanke yi ñoom seen digg ak seen boroom duutuñ ci gisati seen bopp waaye doonut ay melokaan yu yu nekkoon ci moom sax waaye nag toroxlu ak wane e, wane wane wane nituk sofiyanke ni moom e, dafa weesu na yooyu daal waaye dafa effacé wu ak ak nekkam ci boppam la gisatul ci boppam ndax toroxlu mooy mooy jeexitalu e, jeexitalu toroxlu loolu rek la ci jublu moo tax muy wax yooyu yépp waaye xam nañ ni melokaan yooyu muy wax su nekkoon ci moom lii mu réaliser du ko réaliser kon dund na ko bind na ko sàkku na tamit mboolem lu yàlla bind mu seddeel ko ko waaw ndax loolu dafa yemoon ci jëmmi boppam eh, njaboot gi topp ci ginnaawam ndax da leen bàyyi ñu mel ne ay lëg rek sànni leen ci lay bi wala am na ci taxawaay jëm na koo def ci ñoom te loolu mooy tomb bu mujj bi ndax li ñu dese ci ay minutes bariwut waaw jërëjëf sëriñ Cheikh Mbacké sëriñ bu mag bi ni mu dundee tawxiid ak gëm yàlla noonu itam la ko jëmmale ci mbooleem ñi mu doon yar bëggoon na ma sax dugg ne tawxiid xëy na loolu bu ñu ko waxee day gën a gudd mooy lim ci tànnoon mooy tawxiidu ahli sunna wal jamaa bi nga xam ne moom lañuy askan al imaamul ashari ak ñi dëppook moom abu mansuurul maturidi ak mboolem ñi dëppook ñoom waaw loolu li ma ci bëggoon a feeñal rek mooy rasulullahi xam nga jamonoom diine jëpp jenn la dafa jàngale ci xadis sayyidina jibril ba al iman islaam ihsan iman nag borom xam-xam yi gëstu ko dajale mbooleem la ci rot tudde xam-xam xam-xamu tawxid islaamin ñu gëstu mbooleem li ci rot tudde xam-xamu xam-xamu fiq ñi koy gëstu ñu tudde leen al fuqaha ixsaan ñu dajale ko bind ci téer yu baree bari ña koy gëstu ñu tudde leen as suufiya xam-xamu tawxid nag dafa bari école waaye école bi nga xam ne moom mooy ahlu sunna wal jamaa nga xam ne mbooleem eh, ahlu sunna yëpp maliki yëpp saafia yëpp xanaabila fudala wal xanaabila ni ko taaju dina subki waxe ak sawafia yi ak axnaaf nga xam ne ay maturidi lañ ñu ñëpp pas-pas biñ ne moom la sëñ bi jàngalewaat leeral ko nga xam ne ginnaaw abu abul hasan ashari nga xam ne ñetti téeméer atum ñetti téeméer ak nangam la génn àdduna waaye ginnaawam ñi ñëw ñëpp ci ay borom xam ci moom ci ci pas boobu lañ nekkoon te mooy tàmbalee ko ci ibnu hibbaan al busti borom saxiix bi ak kitaabu siqaat ak alxaafis abul hasan ad daara qutni الحاكم النيسابوري أبو نعيم الأسبهاني أبو بكر البيهقي إمام الحرمين الجويني waaw pas-pas boobu tënk waaw mooy pas-pas bi nga xam ne gàttal gi rek mooy mbooleem li nga xam ne moom la yónante bi indi woon ci alquran ak sunna si yónante bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu aju ci gëm yàlla na ko alquran indee nga xam ne dugaluñ ci leneen loolee rek lañ jàngale mhm. bu dee ci gëm yàlla na ko suñu borom waxee ci alxuraan wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axir yonente bi moo ca moo ca dolli qadarihi amana rasul bi wal muminuuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi mhm. nga xam ne na ko alxuraan indee noonu rek lañ ko jàngale suñu borom it mbooleem li nga xam ne moo yàlla ci moom ñu saxalal ko ko li nga xam ne moo jomb ci moom ñu jombale ko ko gëstu ko def ci yitte ju bare bari moom la sëñ bi doon jàngale loolu it sëñ bi moom la dénk mbooleem njaboot gi waaye sëñ bi nag duggul nag ci détails yi xam-xam yooyu nga xam ne léegi si xëy na lañ ko soxla sëñ moom bu daa jàngale day wax ne masalan dénkaane na ñu fonk tawxiid ak pas waaye day wax rek pas-pasi sunna yi rek loolu lay wax yaa maachara shubbaani in xiftum xajal fa qaddimu taalluman ala amal fa qaddimu al aqaida سنية مجردات من عنفرا ومريا لا تترك العقائد السنية ولازم العبادة المرضية وحنا يتم ننجويت السن بروم لولا ديغلي لوزو لوزو بربكم مع التوحيد دا وخني التوحيد موي راس مال موي كابيتال جولت بي اك وبعد فالتوحيد راس المال وروح دين الله ذي الجلال موي روح دين جي ام diko denc mu jëm ëlëk neena amul lu ci gëna kawé tawhid tawxid ma tawhidu khayru duxri li shakhsi fil lqabri wa yawm an annashri li annahu an gayrihi yugni wala bidunihi yufiidu ilm al musjara neena benen xam-xam bo am te amoo tawxid amagoo dara boko xasse amit neena man nga ñak leneen te du la wàññi dara neena motax li ngay denc mu jëm ëlëk la ci gën moy am xam-xamu tawxid daana wax sax nak ci mu jëm ne jamono jii nii مقام مي گنا ري موي فخ با توحيد دك سا لول مي مجموعه بي سي بلاد مولون واخني اعلى المقامات عند الله تعالى في هذا الزمن اسكان التوحيد في القلب تالف ني تام تير يو بري بري سي والو توحيد بوب تالف ني مواهب القدوس في نظم نثر شيخنا السنوسي تالف ني نظم بنين بو خامني ام البراهين لا تي تالف ني فيض الغني المغني فيما عن السلوك يغني اك الخدمه المطهره اك فتح الفتاح العليم الخبير في بث علم يؤدي الى الاجر الكبير اك جالبه السعاده اك لو جمع المقامات التي فر اليها القوم في شرح قصيده لا تاخذ سنه ولا نوم فيد العليم الخبير الوحيد فيما لا يستغنى عنه من التوحيد اك جذبه الشغار اك تيري ييغا خا ايمان اك اسلام اك احسان كم تزود الشغار تزود الشبان ويدم nga xam ne ci téere yooyu day wane ne diina ñetti xaaj la ni nga ko xamee rek. da ci am ay buntu ay buntu waaw. waaw wax na nu itam li ñu war a gëm moom Sëriñ Tuubaa wax na ne. imaanukum an tu'minu billahi wa bi jamiici kutubihi almunazzala wa bil wa bil wa bil malaaikati jundillahi wa bi jamiici kutubihi almunazzala wa yawmihi alaxiri yawmi zalzala wa bi jamiici rusulihi wa bil qadar min xayrihi wa sarrihi xaytu sada mooy nga gëm yàlla gëm. dégg nga malayka yi gëm yonante yi gëm téere yi yàlla wàcc woon gëmub dogal gëm bis gëm bis bis penc wax na itam ne gëm yàlla dëgg dëgg taarif na ko xamle na ko wax na ne al imaanu jazmun bil xaw bil qalbi bi wujudillahi taala wa anna maa siwa llahi xalqun wa abdun lahu ca majmua ba wax na ne gëm yàlla mooy nga gëm nga dogu ci sa xol ne yàlla ci boobam ku am la te ku dul moom moo la sàkk ñan lool boko defé rek gëm nga yalla loolu it wax na ci lu bare bare bare bari amna nak sax makna menen mum jox tawhid mo xamni gisuma kuko ca fekk dafa wax ni tawhid buñ ko waxee deug deug du ceegee ni nga dàqal yalla ay lu ay manki den ndax neena yalla manki wul ci genn wet neena na ci yow la ne ak sa xol boko ci génnee rek da ngay gis maguk sun borom gi ak selam gi wëlis de nga lepp luñ ko wara loolu it maanaam mu kawe la wax na itam ne maanaam suñu borom leeral na nu mooy kan wax na ca mawaahibul quddus ne i'lam xabaana allahu rusdan wa saa kaana ilahuna wala shay'a maa wa laysa min shay'in wala fiihi wala fi taxtihi wala alayhi musjala fa laysa maxluqan wala maxsuura wa laysa maxmuulan wala maqhuura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 amul bërëb ndax moo sàkk bërëb njëkk bërëb di am lam nekkoon ca la ne du ku ñu sàkk du ku dara mën a gaw du ku ñuy yanu mbaa kuñ mën a nott ci genn genn wet moom daal nee na boo ci bëggee noppal da ngay wax ne daal eh, lott ci xam ko nee na mooy mooy xam ko dëgg-dëgg mm-hmm. ndax amul jamono amul bërëb mm-hmm. amulu xeet lépp lu toq sa xel ba nga jàpp ne loolu yàlla nee na loolu bokkut ak suñu borom tabaaraka wa taala dama lay waaw léegi waaw maa ngi doon ñëw li xëy na maa ngi jégalu maanaam docteur Khadim man bi ma ko waxee barki dem waaw dama doon jéem a dajale li nga xam ne moom la sëñ bi wax ci ci tawxid mm-hmm. mm-hmm. yàlla dogal bokkut sax téere yi mu yi waaye li ma dajale ci xasaar yi bant na ñeenti téeméeri bayit ñeenti téeméeri xët ak nangam macha allah kon sëñ Tuubaa moom loolu day firndeel mm-hmm. ne moom jàngale na jëmmi suñ borom ak i meloom mag loolu mi ngi ci téere yi buñ ci ñewon day gëna gudd. waaw waaw bu dé yeneen yi wara gëmit nonu ak niñ ko wara jappé jàppee. wax na sax bayit wo xam dafa wax ne léppi tawxiid mi ngi ci. wax ne na ngeen ko jël jëlé ko ci man te fonk ko. fuzu bi baytin wahidin qad qama maqama jumlatin turi maqama fi wajibin wa jaizin wa mustahil awjib ajiz wan fil ladhi al aql yuhil allah mawjudun bighayri mujidi wa innahu muujidu kulli muujadi yàlla na nga xam ne am na te kenn amalu ko te képp ko am moo la amal neen loolu mooy gàttalu tawxiid téere yépp loolu lay loolu rekk lay jàngale mm-hmm. murid yi itam digal na leen ñu fonk euh, tawxiid ba muy wax murid bi awwalu waajibin ala murid taxsiilu zaadihi min tawxiid la wax murid bi li jëkk ci moom mooy jéem a xam euh, dégg nga am amub yóbbal ci tawxiid nee lu muy jàng ak lu muy jéem a xam mu doog ko caa dolli euh, ba tey tariqaam yoonam wi itam da ko teg ci kaw tawxiid fi ne bi mu jàngale teggin yi nga xam ne moom la murit bi war di dunde dafa da caa boole teggini biir yi teggini biir yee ba mu koy wax dafa wax ne moo gën a mat a fonk ndax teggin yooyu boo ko ñaawalee suñu borom dalay dàq ci buntam te nee na mbugal mi gën a rëy mooy yàlla dàqee la ci buntam wa tardu an baabil ilaahi wal xijaab ashaddu min kulli garaamin wa adaab daal di wax nag teggi nii nag yépp nag dafa aju suñu borom mooy misla taarudi qadaihi walaw bi layta aw laalla aw lawla walaw maanaam suñu borom def dara dogal dara nga naan aka neexoon mu defe ko nangam ak suñu borom daa waroon def nangam nee na loolu ñàkki teggin la sa diggante ak sa borom dog maanaam taxaw fi kanam benn dogalu suñu borom rek neen loolu dafa bokk ci ñaawel ñaawal ay teggin sa diggante sa borom ba tey jéem a wutuk tànn fi kanam tànnuk suñu borom gi nee na it ba tey ci teggini biir yi nga xam ne moom la ñu war a sàmm ci la bokk mm-hmm. ak geestu leneen lu ma yàlla wala ragal ko wala jàmbat mbindeef Sëñ Tuubaa mës ta jàmbat mbindeef moom ni nga ko xamee mm-hmm. ak topp yomb yomb yi wala geestu ni ma ko waxee ak yeneen yu bare bare yoo xam ne yoo xam ne def na ko ma ngi ca Masaalikul Jinaan léegi léegi waxtu wi waxtu bi dafa dafa jeex eh. mën nañoo tënk ni kon jàngale na ko waaw ci jàngale boo xam ne ngir ñu mën koo dund la hmm. dugg ci ay weranteeg yu mel noonu dugg ci loo xam ne tamit leeral ko ñi aju woon ci am xëy na du yomb te da koy sànkal waxtu hmm. daf leen taalifal liñ mën a jariñoo hmm. dund ko mu taalif bàyyi ko fi kon dafa amoon pragmatisme maanaam moom ñu dund ko la moo ko gënoon a yitteel werante bi ak jiñante bi yooyu soxalu ko woon euh, wax na tamit li mu bëgg a doon moom jàmm yàlla liggéeykat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon dafa mel ne euh, ku wax yenn waxi waxi boppam la ku jëf yenn jëfi jëfi boppam la waaye moom ay waxam ak yi jëfam leer na dafa mel ne euh, taalibe yi tamit jàngal na ñam jamondoonte woon bind bàyyi fi ngir ñiy ñëw ëllëgam Euh, kon dafa mel ne mbir yi leer na yaakaar naa ni. amul sikk leer na naññi. waaw Sëñ mbiram leer na naññi. léegi léegi dañoo bëggoon dañoo bëggoon. léegi tëj waaw Sëñ ci moom wax na ne. Mhm. barra anil quddoosu min kulli danas. Mhm. mboolem lu dib tër mbaa mu dib safaan. mbaa lu jaarul yoon. Mhm. mbaa lu jiyoog bëgg suñ borom loolu bëggut ak dara Sëñ Tuubaa. lam yanxuni kufrun wala fusuuqu aw shirku naw maa lii adan yasuuqu dara lu di kéefër mbaa mbaa mbaa mbaa ab safaan hmm. maanaam mësta bukkut ak dara sëñ Tuubaa léeg-léeg na nga gis murit bu mel ne man am njuum tey boppam yoo xam ni maanaam matadik doomu aadama moo ko ci sóob wala mu ñàkk sax ànd ak sagoom yooyu yëpp lu mat a bàyyi xel la loolu nag boo ko bëggee askan murit yëpp mbaa nga bëgg ko askan sëñ Tuubaa loolu tooñ gi gën a rëy la <laughs> tooñ gi gën a rëy la sëñ Tuubaa daal jaamu yàlla boo xam ne yàlla gërëm na ko ci ak mbaax la nekkoon ba jóge fi mbooleem ñim dajaloon jamono itam seere lañ ko loolee jërëjëf ba tax na koo xam ne yaa ngi koy tuumaal loo xam ne beneen waaye ko def daal ëllëg da ngeen taxaw fa suñu borom nga te boo layeeg moom mu yey la moom jërëjëf kon loolu mooy gàttal maa ngi jéglu bu baax nag ci ñàkk gi ma ñakk nose nosee mhm. eh, mbooleem waxtaan wi ak kii bi sëñ Tuubaa mhm. ci ne mhm. wax na ci moom ne ak sax da koo màbb bu doon tabax da koo màbb moom ba masale ko xëdamtu binyata kafuurin wala kufuurin wa fusuq loolu wax na ko hadamtu baatilan bi xaqin fa zahaq yàlla na yàlla taas ci barke maa ngi jégalu bu baax di jégaluwaat sëriñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah tubaarkàlla jërëjëf jërëjëf sëñ Ahmed euh, waxtaan wi am na solo lool euh, tomb yu bare bari tënk nga ko ci euh, dafa mel ne daal mbir yi ku bëgg a lëntal yaa bëgg lëntal waaye ku ku ku xooli lim bind moom waxal ko boppam dundal ko boppam. Eh, wax taalibe yi ñu jaar ci yaakaar naa ni mbir mi mën naa leer ku bëgg a sa xel nag loolu leneen la kon tawxid mooy diineem tawxid mooy teraangaam tawxid mooy am amam tawxid moo nekk ci xolam leneen nekku ci lu dul lu dul lu dul ca looy doonut lu ko dab dafa gën àdduna rek jógaale ko moo tax sëñ Basiru wax ko loolu mu wax ni dafa jóg rek eh, ñëw rek nekk nitu yàlla sant na ko taalibe yi tamit def ak ñàkk def moo fi am bind na ko fi bàyyi fi dellu ci ak ñàkk ca dellu moo ci am kon yooyu yaakaar naa lu mat a xam la ñoo ngi dellu di la sant bu baax a baax di jéggulu bu baax a baax di sant tamit ñi àndoon ak ñun ci jotaay bi ba beneen jotaay incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah